waaw mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci buntu sim cimetière yu Yoff yi fas yéene di xaar kooru Duudu Yaay Kati mi nga xam moo nekkoon benn monument ci làmb tey ku gis Manick Ndiaye xam ni am na fu ñu jaar sànq jot nañu suñu papa Bekaay mbay mu am seede bi mu def ci moom ba doonte du daan jekk ko lu ñu naan dara du hasard tey ñoom ñaar la ñu fekkaat père ñu ngi lay siyaar. maa ngi lay siyaar di la nuyu di di la jaale nga xam ne kii mooy suñu xarit ki fi jógee di Duudu Yaay nekkoon xarit yi képp koo xam ne kii da nga doon yëngatu ci biir làmb ji wala nekkoon xarit d'une manière général képp koo xam ne kii acteur culturel nga man foofu laa ko laa ko jàppe du lu nekk nag koo xam ne ki ci làmb ji ah, baat bi neexoon na duudu bu doon woy boo déggee timbre bois bi nga xam ne kii artiste dëgg la man damay organiser souvent ay euh, làmb séeréer yi

yàlla na rek ci li nga xam ne bii nekkoon na ko ci suuf. waaw bi nga koy defaral album bi ndax ministre de la culture yu bari jaar nañ fi lan nga yëgoon ba ne du sekk monument la ci làmb war nañ ko mën a defal album boo xam ne dañ koy dégg fu ñu toll. mais xam nga boo nekkee homme de culture yàlla def ñun def la ministre de la culture je crois que jàppale acteurs culturels yi moo la war duudu bu ñu defutoon ar euh, cassette boobu. je crois que c'est vrai am na ay cassette ci yeneen rajo yi yeneen télé yi yeneen mais temps yooyu nga am loo xam ne lii dañuy conserver la valeur culturelle ah sportive ah nekk na loo xam ne lii am na solo moo tax moo woon du jànje ko o Bécaye Mbaye ne leen dama bëgg ñu produire comme artistes yëpp ñu produire euh, Doudou euh, ñoom it ñu dox ko ci dox ci ba cassette bi génn kaset bi génn nekk loo xam ne vraiment lu immortel la saa yu duur saa yoo gisee cassette bi rek saa yoo ko dégloo xam ne vraiment dudu euh, artiste dëgg la man daal ci côté artiste bi laa ko jële woon parce que acteur culturel la euh, dudu bu cilam ci lamb ji animateur la dudu bu cilam ci lamb ji day day bégal nit ñi te kuy bégal nit ñi rek dina ko fu muy dem